non mais gars yi nag vidéo yi may gis muy circuler vraiment vraiment vraiment loolu moom waa rafetlu ma ko quoi muy lan ba Lions yi retourné ca Dakar aéroport bi Aliou Cissé wàcc gars yi di ko yuuxoo xamoo gat xamoo gat mais la c'est vrai moom gis na yenn nii yenn réaction yi yenn réaction yi mais pas ça quoi wàcc di ko humilier noonu comme que ni dafa def délit bu rëy rëy rëy rëy carrément bu dul dara. jot ngeen gis coow fi jot a am toog nañ six mois fay ñu ko muy démerde équipe bi di dem di gérer jël fi coupe d'Afrique des nations malgré sax joueurs yi tamit joué nañ ci rôle bu am importance. mais moindre chose vraiment vraiment ñu mën a bàyyi loolu mu jàll comme ay di ko yuuxoo ci ci ci ci ci euh, aéroport di ko humilier te mu yore njaboot et autre chose te mu doon sénégalais en plus non mais là là là vraiment je suis pas d'accord vraiment je suis pas d'accord man mii critiqué naa ko positivement ci choix yi mu def. ils étaient pas d'accord quand même ci choix yooyu noonu yéex def changement ak deux mille terrain yeeg yeneen ak yeneen mais man sama sama sama niveau yeggul ma muy muy wàcc ma koy yuuxoo di ko humilier comme pas possible bu dul dara waruñoo fàtte si février li ñu doon faral di wax rek ñun xam nañ victoire bëgg nañ victoire trop mais mënuñoo digérer défaite te loolu il faut ñu jéem ko jàng te xam ne ci compétition lañu nekk ni ñuy amee victoire noonu la ñuy amee défaite buñ ko teewul da jàng rek ci la problème di tàmbalee mu ngi noonee Aliou ñëpp xam nañ ne ne erreur la def erreur bu mag muy choix yi yéex a def changement ak deux militaires yi mu def ba militaire Côte d'Ivoire bi étouffé sunu militaire bi mais loolu taxul ñu war mu war a wàcc ci aéroport ñu koy saaga di ko yuuxu di ko di ko di ko di ko humilier tam yore njaboot c'est pas facile quand même xamoo ne lan lay daj avant muy ñëw ci compétition yi mais là c'est trop quand même vraiment à un moment donné il faut que ñun ñuy ñuy ñuy ñuy xalaat lu bëri quand même comme doonoon sa waajur bu góor wala mu doon sa mag doo bëggee mu demee. Aliou Cissé narata continuer coach équipe nationale du Sénégal mbir yaa ngi ruumalaat nu mu demee nan la naka la dinañ ci ñëw gars yi yaatal leen teg lépp ci taal bi salaam gars yi bégg naa leen nuyu ko ci nekk seen ab ak seen ab sant gis nañ Coupe d'Afrique des Nations bi li ci jote xew ñu bëri nañ ñu ngi doon xaar Sénégal mu yegg ba final pourquoi pas sax mu jël coupe bi mu doon doublé une deuxième fois consécutif mu doon loo xam ne da doon neex mu ngi noonu mais gis nañ ne Sénégal yeggul foofu te dañooy coach ci en général dañuy teg ay objectif maanaam niveau bi boo ci yeggee lii niveau bi lii lii lii fii nga war a yegg jot nañ nag am na ay xibaar yu jokko joto ruumalaat c'est pas encore confirmé joto ruumalaat que ni Aliou Cissé démb que ni Aliou Cissé narta continuer coacher équipe nationale Sénégal mu ngi ruumalaat nag ñu ngi xaar topp mbir bi nal ak naka la lépp ci mënti am nañ leen ko tegal ci table bi mu ngi noonu Sénégalais yu bari nag ñu ñu ngi doon wax naan Aliou nañu abal ñi nee na Aliou na toog mbir yi demoon na ba jaxasoo ku ne indi sa xalaat actuellement am na ay xibaar yu ruumalaat comme que ni Aliou Cissé narta continuer coach ci équipe nationale Sénégal li waral loolu mooy que objectif bi ñu amoon ci kan bi ah, egguñu fa mais tamit buñ jël lépp joxoñ baaraamu tuuma Aliou Cissé suñuy dirigeant yi jiite sport bi am nañ ci part de responsabilité bu rëy a rëy te dinaa ci ñëw nag benn par benn tegal leen lépp ci table bi dala du leen rëcc duñ jël lépp. joxoñ ko Aliou Cissé kase kase kase mooy coach bi mooy joxe dernier soir mais leneen li làpp ci ginnaaw yu bëri am na Sénégalais yu bëri xamuñu ko te loolu yëpp incha allah dina leer lépp dina leer tegu ci temps Aliou jox nañu Coupe d'Afrique des Nations c'est vrai parfois il fait des choix yoo xam ne nii ba doo ko comprendre parfois mu def erreur malgré l'erreur est mais bu ñu jël tóor bi yëpp door ko ci ndoddam waaw suñuy dirigeants yi jiite sport bi am nañ ci part de responsabilité yu bëri suñu élimination te yëpp dinañ ko teg ci table bi. Sénégal xaw ma dañuy fàtte xaw ma dañuy fàtte fàttelu Aliou Cissé mii ñëpp xam nañ ni bokk na ci ñu yàq suñu match contre Côte d'Ivoire mais bu ngeen xalaatee fi mu ñu jëlee ak fi mu ñu indi di ngeen toog dal xalaat bu baax avant ngeen naan nañ ko dàq. génération 2000 bi amul kenn ku ci mës a seetaan finalu Sénégal avant Aliou di ñëw 2002 lañ gëjoon dem final Aliou xam nga fa la ñu fekk toog premier tour huitième de finale quart de toog toog toog. Aliou Cissé ñëw indil ñu final final demi final coupe. ñëpp xam nañ ni du tacticien taxu kaa tàng noonu mais résultat yi mu koy indi bu baax te loolu dong la ñuy laaj bu ñu fi nekkee nag di wax bañ dàkk kii ak fédération bii ma gis nii Amara Traoré lañ la nar a indilaat wala Pape Thiaw. maa ngi dégg nañu ay Habib Beye ak ay Omar Daf ak Hervé Renard Habib mu ngi ci projet bu mag moo jël pay ci clubam te digg saison la ne du ko bàyyi di ñëw fii Omar Daf waxi nopp Hervé Renard nag mënuñu koo fay ku mënul fay 30 millions Aliou Cissé pendant 6 mois du Hervé Renard mii ngay fay nañ bàyyi caaxaan yi coupe d'Afrique bi di ñëw li ci des bariwul beneen coach boo fi jël day recommence à zéro balaa moo teg ay plan am rek coupe d'Afrique bi egsi nañu bàyyi Aliou Cissé mii mu. yow nag Aliou Cissé fii lañu la nar bàyyee àdduna ak alaaxira su la dara méttee ci li xale yi di wax nii yàlla xam na ko ci lañ lay bàyyi nag ci nga ñuy doog a def lu nu nakkari ci sunu àdduna mbégte mi nga nu defal kenn mësuñu koo defal ba ñu juddoog tey mësunoo am mbégte mu doy nii yaa nu ko fi defal daaw ñi doon génn di la yàq kete mi ñëpp naan ay yaa baax ñoo bon jàppee ñu ay moomin ay xale la ñoo nangam ak nangam réewande képp a leen jàpp moo tax ñu di la saaga di la wax lu bon bu la ci dala dara déranger gis nga sunu réew mi Afrique sax laay wax nag damay damay maasale Afrique gépp laay wax ñoom ndam rek la ñu xam xamuñu defet ndax gis nañ barki démboog Njaay nanu def Côte d'Ivoire kon ñun bu buñ ko defee tey mbaa ñu di la ko wax bu la ci dara nakari gàcce ngaalaamaa ca kaw ca kanam siggil ñu di la xool compétition la ñu wax dangay am mbaa nga ñàkk tey nag ñun la suñu borom nattoo ñàkk bi dañu koy muñ bu baax a baax a baax a baax gis nga joueurs yi ñoo ñu gën a bëgg ndam téeméeri junni yoon ndax gis ngeen jooy yu metti yu nu jooy yal na yàlla defal leen jàmm ndam rek gars yi bu leen ñu sonal ak Aliou moo ñu indiloon kan bi daaw moo ñu defoon daaw ak daaw kontaanal nañu ak yooyu bu ñu sonal ak loolu waaye ah. xanaa kon ñu jàpp ci Macky Sall moom mi ñu indil TER bi ak BRT defar ñu fi lu bëree bëri te teewul tey lañ a doyal ci moom loolu moo ko war dafa a indi loolu loolu lañ ko fi tegee di ah yow Aliou buy dem du la fi bàyyi Macky Sall bu ko fi bàyyi yóbbaale ko yow course yi ci àdduna bi yëpp melnum safi doo nga fi tane nga ne lii dana la jik man bala maa dee ay jigéen doo nga lay défendre ay jigéen kese te ñoom xamuñu football ñoom dañoo jàpp ne affaire ngor la ak affaire diine ay daaw moo ñu kontaan loo woon ren ba ci la Aliou Cissé narata continuer coach équipe nationale du Sénégal mbir yaa ngi ruumalaat nu mu demee nan la ak naka la dinañ ci ñëw gars yi yaatal leen teg lépp ci taal bi salaam gars yi bégg naa leen nuyu ko ci nekk seen ab tur ak seen ab sant gis nañ Coupe d'Afrique des Nations bi li ci jotee xew ñu bëri nañ ñu ngi doon xaar Sénégal mu yegg ba final pourquoi pas sax mu jël coupe bi mu doon doublé une deuxième fois consécutif mu doon loo xam ne da mu ngi noonu mais gis nañ ne Sénégal yeggul foofu te dañooy coach yi en général dañuy teg ay objectifs. maanaam niveau bi boo ci yeggee lii niveau bi lii lii lii fii nga war a yegg jot nañ nag am ay xibaar yu jokko joto ruumalaat c'est pas encore confirmé joto ruumalaat que ni Aliou Cissé depuis que ni Aliou Cissé narta continuer coacher équipe nationale Sénégal mu ngi ruumalaat nag ñu ngi xaar topp mbir bi nan la naka la lépp ci mënti am nañ leen ko tegal ci table bi mu ngi noonu Sénégalais yu bari nag ñu ñu ngi doon wax naan Aliou nañu abal ñii nee na Aliou na toog mbir yi demoon na ba jaxasoo ku ne indi sa xalaat actuellement am na ay xibaar yu rumalaat comme que ni Aliou Cissé narta continuer coach ci équipe nationale Sénégal li waral loolu mooy que objectif bi ñu amoon ci kan bi ah, egguñu fa mais tamit buñ jël lépp joxoñ baaraamu tuuma Aliou Cissé suñuy dirigeant yi jiite sport bi am nañ ci part de responsabilité bu rëy rëy te dinaa ci ñëw nag benn par benn tegal leen lépp ci table bi dala du leen rëcc duñ jël lépp. joxoñ ko Aliou kase kase kase mooy coach bi mooy joxe dernier soir mais leneen li làqu ci ginnaaw yu bëri am na Sénégalais yu bëri xamuñu ko te loolu yëpp incha allah dina leer lépp dina leer tegu ci temps Aliou jox nañu Coupe d'Afrique des Nations c'est vrai parfois il fait des choix yoo xam ne nii ba doo ko comprendre parfois mu def erreur malgré l'erreur est humaine mais buñ jël toor bi yëpp door ko ci ndoddam waaw suñuy dirigeants yi jiite sport am nañ ci part de responsabilité yu bëri suñu élimination te yëpp dinañ ko teg ci table bi. non mais gars yi nag vidéo yi may gis muy circuler vraiment vraiment vraiment loolu moom waa rafetlu ma ko quoi muy lan ba Lions yi retourné ca Dakar aéroport bi Aliou Cissé wàcc gars yi di ko yuuxoo xamoo gat xamoo gat mais la c'est vrai moom gis na yenn nii ren réaction yi. yenn yi mais pas ça quoi wàcc di ko humilier noonu comme que ni dafa def délit bu rëy rëy rëy rëy carrément bu dul dara jot ngeen gis coow yi fi jot am toog nañ six mois fay ñu ko muy démerde équipe bi dem di gere jël fi coupe d'Afrique des nations malgré sax joueurs yi tamit joué nañ ci rôle bu am importance mais moindre chose vraiment vraiment ñu mën a bàyyi loolu mu jàll comme ay di ko yuuxoo ci ci ci ci ci ci euh, aéroport di ko humilier te mu yore njaboot et autre chose te doon sénégalais en plus. non mais là là là vraiment je suis pas d'accord vraiment je suis pas d'accord man mii critiqué naa ko positivement ci choix yi mu def et j'étais pas d'accord quand même ci choix yooyu noonu yéex a def changement ak deux milieux de terrain yeeg yeneen ak yeneen mais man sama sama sama niveau yeggul ma muy muy wàcc ma ko yuuxoo di ko humilier comme pas possible bu dul dara waruñoo fàtte si février li ñu doon faral di wax rek ñun xam nañ victoire bëgg nañ victoire trop mais mënuñoo digérer défaite loolu il faut ñu jéem ko jàng te xam ne ci compétition lañu nekk ni ñuy amee victoire noonu la ñuy amee défaite buñ ko teewul da jàng rek ci la problème di tàmbalee. mu ngi noonee Aliou Cissé ñëpp xam nañ ne ne erreur la def erreur bu mag muy choix yi yéex a def changement ak deux milieux terrain yi mu def ba milieu terrain Côte d'Ivoire bi étouffé sunu milieu terrain bi mais loolu taxul ñu war mu war a wàcc ci aéroport ñu koy saaga di ko yuuxu di ko di ko di ko di ko humilier njaboot c'est pas facile quand même xamoo ne lan lay daj avant muy ñëw ci compétition yi. mais là c'est trop comme même vraiment à un moment donné il faut ñu ñuy ñuy ñuy xalaat lu bëri quand na nag doonoon sa waajur bu góor wala mu doon sa mag sa rakk doo buggee mu demee nii kenn mënu fee taxaw wax na ne moo gën a yaa ko bën gën a bëgg Sénégal.